nekk sax d'ailleurs beneen bi ci des boobu mooy ñi ñu yuuxoo xam nañ leen réew mi xam nañ leen puisque c'est pas la première fois ñu ñu koy def njëkk nañ fa dem ci manifestation boo xamante ni dañ jàpp ni tous les leaders de l'opposition dañ fa war a daje pour des combats démocratiques parce que là aussi F24 li ko tax a jóg c'est pour des combats démocratiques te bi ci jiitu mooy euh, xeex troisième candidature bi nga xamante ni Macky Sall ak son régime ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy taxawal mm-hmm. ci gën doy waar mooy ñun niñ xamee woon ni bu ñu fa demee dinañu yuuxoo ñoom ñi ñu yuuxu seeni kilifa artu woon nañ leen wax leen ni leen bu ngeen demee bu leen yuuxu benn leader kon ñoom ar artu woon nañ leen mais malheureusement l'appel n'a pas n'a pas été respecté cest seen kilifa li mu wax moo taxoon nag ñun aussi malgré yuuxoo yi il faut que ñu bokk ci lii puisque tamit fa ñu dugg muy F24 légitimité bu ñu koy wax légitimité politique dañ ko fa am parce que bu ñu fàttaliwoo ci élection yi mujj que le baromètre de la démocratie c'est les élections te urnu yi li mu joxe élection législative yi ñu génn à part le parti au pouvoir et l'interco l'intercoalition yi Wallu les serviteurs ñoo nekk la troisième force de ce pays loolu la yàlla def maintenant loolu aussi il faut que ñu respecter ko sénégalee donc moo tax ñi toogoon foofu muy ay leader kenn gënuñu am légitimité maintenant bariwuñu lu ñuy tontu que yàgg nañu attaque bariwuñu lu ñuy tontu mais aussi en un moment donné nag il faut que ñu taxaw tuuti pour wax ak sénégalais yi ñu xam exactement li nga xamante ni moo waral yuux yi te bu ñu duggee ba ci biir waxtaan bi mën nañ leen a andil li nga xamante nii jàpp nañ ni loolu kese moom moo waral yuuxu yi que amuñu problème benn ak benn leader actuellement au Sénégal. alors wax nga ko léegi léegi nee nga il est temps que ngeen euh, di rétorquer parce que yàgg ngeen a noppi ci seen li seen njiit sax di seen leader di Pape Djibril Fall taxaw na Sénégalais yëpp di ko dégg mu ne waa Pastef ñoo ko yuuxu fan ngeen ko teg. parce li tax ñu ni Pastef ñoo ñu yuuxu euh, dafa leer déjà bi ñuy dugg bi ñuy jëlee boulevard bi pour yéeg déjà ñoom ñu ngi topp suñu ginnaaw. façon yooxu am na yoo xam ni sax par décence ñemewuñ ko wax sax ci sur les plateaux télévisés puisque am na kàddu yu ñu fa jëwoon mais li ñu doon wax ëpp na lool mais ñun aussi ci suñu politique dañu jël ñett yi ñu ni yar ak teggin ak xam-xam lu muy maye dinañ ko am waaye lépp lu muy xañee duñ ko am moo tax foofu rek lañ nekk moo tax yàgg nañu ñu yuuxoo njëkk nañu ñu fi yuuxoo place de l'obélisque seen kilifa génn def naqarlu yuuxu yooyu kon donc xamoon nañu ko seen kilifa moo génnoon di naqarlu yuuxu yi nga xam ni yuuxoon nañ ko le président Pape Djibril Fall cette fois-ci non seulement du ñun kese la ñu yuuxu mais yuuxoo nit ñu yuuxu également un autre leader muy xalifa Sall loolu aussi mën na tuta wéy puisque lenn kese la jafe-jafe bi ñu am benn euh, sama benn xarit boo xam te ni foofu la bokk muy Pastef dani ma suñ problème ak yéen lenn kese la moo koy misaalee mun ma boo ko doon xayma ci xale bu ndaw boo ko bëggaan nga bëgg di ngeen ma jégal ci kàddu yi nga nopp ko mm-hmm. tant xale bu bañee li ngay def mooy foo dajeeg moom ci koñ bi da koy dóor. loolu moo ñu dal ak Pastef. kon da nga bëgg a wax ne yenn soo euh, euh, Pastef dafa bëgg serviteur ñëw ci moom amu ko moo tax fu mu ko fekk rek toroxal ko. xam nga ñun dañu am produit boo xamante ni tamit du pour vanter wu mais dafa neex a jaay le président Pape Djibril Fall bi mu jógee ku sañoon mu ñëw ci sa coalition ku sañoon mu ñëw sa parti ñun aussi bi ñu ñëwee dafa am lu ñu fekk ku ci nekk xool nañ la ni ngay doxalee xool li nga xamante ni doyuñu ci. ñu andi suñu ligne de démarcation daan ne ñun yoon bii lañ bëgg a jël on veut servir ce pays loolu aussi il faut que on est ñu nangul ñu ko te bi ñu ko nangulee aussi yamuñ ci dañ dem élection bi demee élection foofu moo nekkoon nattukaay bi njëkk sénégalais yi yabal Pape Djibril Fall ni ko demal assemblée nationale te bi mu demee assemblée nationale aussi liñ ko fa doon yóbboo mooy contrôle de l'action publique de de de de de, de ak li nga xamante ni moom mooy. Euh, évaluation des politiques publiques je crois que heure bu jëlan parole à l'Assemblée nationale taxawaayam sénégalais yi préféré nañ ko bi ñu fa jógee ñu wër réew mi actuellement nii may waxee ak président Pape Djibril Fall mi ngi njàmbur Sine dans le Fatick on est en train de fair un peu des tournées rencontrer sénégalais yi puisque li nga xam te ni fi lañ jëm muy élection présidentielle yi ñu jëm nit ñu bëri gis nañ leen ñu def cette déclaration de candidature dañuy toog seen salon naan seen ataaye def seen déclaration de candidature mais ñun ñu bari dañu doon xaar chaque fois dañu daan wax pourquoi loo ngeen di xaar pour bañ a déclarer est-ce que di bokk wala du ngeen du ñu bokk mais qu'est-ce qui on a fait le tour du pays actuellement nii bi ma mujjee am les chiffres yi ñu mujjee am sur les 555 communes du Sénégal on est à 337 installations de cellules dans le territoire national sur les 46 départements on est présent sur les 46 départements les régions n'en parlons pas donc on te beneen bi nga xamante ni moom moo ci des la caution morale n'en parlons pas. d'accord d'accord bi nga xamante ni moom moo ci des. Mmh. ma terminer foofu mmh. muy caution bi nga xamante ni peut-être buñ ci ñëwee mën nañ ci andi lu bari. te nga xam te ni sénégalais yu bari serviteurs yëpp pare nañ. d'accord pour mais mais mais au-delà de tout revenir un peu ci ci manifestation bi est-ce que c'est pas euh, créer une dualité entre euh, deux entités parce que tamit ci biir ci biir ci biir euh, rassemblement bi duun rek waa Pastef ñoo fa nekkoon entité yi fa dajowoo ñoom ñoo bari pourquoi Pape Djibril Fall taxaw rek bëgg a songu Pastef ci xanamu ñëpp nekk carrément ñoom Pastef ñu ko yóbbu. xam nga répété naa ko sànq. li li nga xamante ni moom moo fi xewoon bi ñu yóoxoo bu njëkk. amul benn leader bu génn naxarlu ko c'est le c'est c'est Ousmane Sonko lui-même qui est sorti pour faire un post sur Facebook di naqarlu yuuxu yi nga xam te ni doon nañ ko def Pape Fall di rappeler un peu ses partisans ses militants que ñu respecter leader yi que ñu opposition lañ nekk on doit appeler à l'unité. ah il peut se sentir comme benn leader ci yeewi askan wi rek loolu tamit ils sont en nécessité de le faire. bien sûr là je vous le concède. Mm je suis maintenant bi mu amaatee aussi xam nga sénégalais yi aussi tamit du ñu du ñi fi nekkoon ñi nekkoon foofu noonu ak ñi doon suivre mbir mi ñëpp xam nañ ni à chaque fois que Pape Djibril Fall le président Pape Djibril Fall jël la parole en public wala mu dajeeg ñoom dañuy al dañuy saaga ci Facebook bi dañoo saaga saaga saaga bu finalement dañu sonn mais li ci gën a garaaw ñun bu ñu doon tontu def nañu ko dans les élections Ousmane Sonko dem na ba Touba lu mu ñu waxalul amul ñun mu ni ku dut l'intercoalition Yewwi Wallu ku dut ñoom. Macky Sall moo nekk sa ginnaaw mais l'histoire nous a donné raison l'histoire nous a donné raison aujourd'hui ñen ñoo nekk ci ginnaaw Macky Sall finalement ñun de fañ nekkoon ba léegi ñu ngi fi c'est la constance dama koy wax souvent naan la constance a changé de camp puisque ñun fañ nekkoon fa lañ nekk ba léegi ndakate réew mi am na ñoo xamante ni ñi ngi doon wax ak kilifa gi le président Macky Sall par des voies interposé wala di ko jaarale ci diw mm-hmm. mais ñun en tout cas fañ nekkoon kenn mësuñu gis ñu ni ñi ngi wax ak le président Macky te ñi ñu doon wax nan wax leen ñu fan ngeen bokk ndax da ngeen di ñëwul intercoalition Yewwi Wallu wala da ngeen di bokk Benno Bokk Yaakaar imagine tey jii ñi bëggoon ñu bokk intercoalition Yewwi Wallu Yewwi ana ana l'intercoalition boobu ana mu tey fu mujjee imagine le président Pape Bibi Fall demoon ci intercoalition boobu finalement finalement nan lay mujjee te pourtant ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon. ŋàññi démb nag tasagul officiellement. waaw mais tasagul officiellement gis nañ peut-être ay quelques tiraillements mais tasagul officiellement bañ naan fa. mu bu doon sëy la ma xam ni euh, euh, ku jigéen ki mépp nay bagaasam génn na. te daanaka jëli ko dina jafe. ndax mi ngi ci ñetteelu. ci ñetteelu ñetteelu ñetteelu ñetteelu fase. ñetteelu fase d' accord dinañ ci dikk léegi léegi Pape Amadou Gueye gis nga campé nañu débat bi déjà mooy cette dualité bi nga xamante ni déjà mu ngi wër euh, euh, euh, coalition Yewwi Askan Wi mais au delà Pape Djibril Fall aussi jóg na di yëkkati ay kàddu bien vrai que. séentuñu ko woon ci moom parce qu'il n'avait pas l'habitude de parler ainsi mais yëkkati na ay kàddu naka nga gisee déjà jàngate ay kàddoom bon en fait euh, xam nga bu ma dégloo sëñ gay dama naan lii philosophe yi di wax ne c'est devant la maturité des êtres mhm. que l'idéal apparaît en face du réel dañu am benn existant existant bi moom lay tuddee benn réalité politique bu Sénégal di dund réalité politique boobu dafa am benn dualité entre Macky Sall ak li concentré wu ci moom ak Ousmane Sonko ak li concentré wu ci. Euh, boo xoolee tey ñëpp ngi wax naan coalition yi ñu ngi éclaté moom sax mu ngi koy wax mu ngi naan ci bu ñu bokkoon fii. mais pour tënk rek delluwaat ci ci ci ci lu mu wax parce que boobu beneen débat la dafa dafa dafa dafa gën a xóot. Mm-hmm. j'attends peut-être xëy na euh, ay relance am pour mu dugg ci parce que day day day xóot mais ñu def rek benn benn pas analyse sax benn benn. constat de surface. Mhm. Pape Djibril Fall euh, ñi nga xam ne ñoo koy xelal waroon nañ ko wax ne ko bu mu song Ousmane Sonko seen sortie bi ça a été une pourquoi ah ça a été une erreur. ñëw ci manifestation boo xam ne da ko bokk ak seen ay nawle. Mhm. ñëpp ñëw fa sañse ñëw toog di ñaxtu ci leen naq di Macky Sall warul nekk candidat yéen ñu yooxu leen yooxu ñan. yooxu ñoom xalifa Sall waa li ci des ndax yooxuwuñu leen te yéen ñu yooxu leen parce que tout simplement ci seen doxalin ma ñëw ci seen doxalin dafa am ay erreurs yoo leen def lesquelles erreurs yi yéen ko déparé ci ba ngeen nee da ngeen di dem élection législative seen une erreur doucement Jacques bu mhm. fekkee damay wax nga may dagg. no non non no vous. du du du dem allez-y allez bien parce que euh, da ngeen di xale di politique <laughs> te da ngay jàng te tey dinaa la jàngal. Euh, gis nga. erreur ngeen def ça commence bien non mais très bien vous savez mon professeur de philosophie le gouverneur Baldé que je salue au passage dafa ma doon wax ne ma la connaissance ne doit pas souffrir de préjugés bu man waruma bañ nga jàngal ma. Hmm. jàngal la du question tu n'es pas censé tout savoir et je te rappelle que depuis 1986 laa créé Modou Diagne Fada mouvement des élèves travaillistes télé laay waxee. Hmm. nekk say Maturin Diop quatrième ak ñoom Cheikh Sadou Diop M24 bii. moom mi nekk porte parole Bougane je ne sais pas xaw ma sax naa moom fa léegi donc ba léegi bi amee ba léegi def ma lu dul politique. alors may wax ne leen ba ngeen ñëwee dugg ni ngeen campagner seen thème législative Sénégal yi dégg leen jox leen baat jox leen as tuut ci seen kóolute ngeen dem assemblée nationale. pourtant da ngeen def campagne campagne yi taxawu que ni opposition ngeen bokk. Hmm. un discours anti Macky Sall. un discours anti système. un discours de tout ce qui se passe dont vous n'êtes pas d'accord Sénégal yi ne ah Pape Djibril Fall de wax dëgg yàlla jeune pousse la am ñu leen wóolu dimanche jot ñu xëy sangu sañse ran dem fa leen mhm. mais discours bi ngeen téye dem campagne ba yàlla def ngeen nekk député dem assemblée nationale askan bi en retour dañu ni kat seen taxawaay assemblée nationale bii tànk du laal bii la parce que question essentielle yi nga xam ne débattre nañ ko assemblée nationale bi ñu tegee ay question commission de loi question ay ay ay ay débat sur sur sur sur sur sur euh, comment dire motion de censure ak yeneen ak yeneen yéen da ngeen taxaw ne yéen bokk leen nguur bokk leen opposition ay noon ñu ngeen dem taxawee fële et pourtant foofu nag la Sénégal yi nag seen xel commencé tey ne xale bii kat lii mu ñu waxoon ak nii mu taxawoo nii bokkul c'est la même chose que Pape Diop Pape Diop aussi ak Pape Djibril Fall boo xoolee ñoo bokk les mêmes thématiques ci seen campagne ba ñu yóbbu leen assemblée nationale mais ba ñu demee ba sol seen malaanu député wax ba ñu waxoon ba nekk député méngoowul ak seen jëfin. mais mais mënuñu méngale tamit Pape Diop ak Pape Djibril Fall quand ma ñëw maanaam. Mhm. gis nga comportement Pape Diop xam nga Pape Diop moom dafa dem mottali. Mhm. pour témboo bi féete côté. Pape Djibril Fall moom mottaliwul mais ci démarche am xam nga dañu ni. Euh, bukki bu yawee waxambaane ci doxin bi la maanaam posture bi ñu doon xaar parce que bu fekkee tey ji tey dafa am loo xam dama koy woote ma woo ci nit ñi ba ñu topp ma ci di ma xaar benn comportement bu mu waroon am et foofu laa ni vous avez raté coche gis nga tey am na démarche bi ngeen jëloon ni ngeen campagne thématique yi ngeen teg bëgg ponkal yi sax nekk ci naan xale bi kat bi ñu demul tànkam suñu kaw la jëm boo leen ko àggale woon assemblée kon tey heure bi dañuy naan Sonko Pape Djibril Fall. ba pare ba ngeen ñëwee ñu waxoo leen la moo tax ñu waxoo leen parce que Sénégal yi dañu am xel ñaar ci seen doxalin ba pare nag ëlbatiku yow taxaw nga fii ni Ousmane Sonko nee na ay partisans bàyyi leen yuuxul parce que yiwul parce que Sénégal tamit au-delà de tout ce que nous faisons nous avons nos fondements culturels mm-hmm. ce sont des fondements qui sont la tenance sur lesquels ñun mënuñu ci badiner réew bu nekk day am askan day am foo soso ngeen ñëw tey génn def erreur politique daal di ne Ousmane Sonko moo ñu yuuxu te pourtant yi Ousmane Sonko neewoon na ay nitam bu leen ñu yuuxu donc loolu mhm. boo ko xoolee ci benn jàngat bu ndaw c'est-à-dire que donc dafa am benn rupture de confiance mhm. bu commencé am entre l'électorat mhm. ou bien tous ces militants parce que tey da ngeen stigmatiser rek est-ce que waa Pastef rek ñoo leen mere est que lu tax waa Pastef kase war leen mere lu tax militants yeneen parti waruñu leen mere ngeen jàpp parce parce que tout simplement au-delà de ces Mm-hmm. ça montre que les Sénégalais ne sont pas contents sur votre démarche politique et sur votre communication politique en réalité c'est ça le fond du problème d'accord Pape Amadou merci euh, euh, Aliou euh, également gis nga li nga xam ne jot nañ ko fi jot nañ fi tëral par rapport ak ce qui s'est passé place de la nation Pape Djibril Fall jàpp ne stigmatisation la bu jógee ci ci ci Pastef je peux reprendre peut-être la la affirmation wu Pape de sa part je je suis embêté parce que parce que déjà maa ngi laaj lan moo kan mooy askan wi euh, euh, kan mooy jugé ni diw nii la war a mel wala diw nii la war a mel kan mooy euh, joxe xam ma nu ñu koy waxatee kii bi mooy carte de kii carte de quitus ah quitus quitus bi pour wax ni diw mooy lii wala diw mooy lii il me semble que peuple bi defu ko parce que kenn xamul lu peuple bi bëgg c'est quoi des oppositions je pense que ni ay opposition ñoo am ci biir opposition Sénégal est-ce que wax sa bopp ni maa ngi ci opposition mooy tax nga nekk ci opposition bi wala déet est-ce qu'il suffit juste de le dire pour y être wala ci ay attitude ak ay comportement ak ay gis-gis ngay xalaat ni yow ànduloo parce que être dans l'opposition c'est quoi finalement c'est ne pas être du côté du pouvoir tout simplement quand on s'oppose au pouvoir on est forcément du côté de l'opposition ci ay actes yu ñuy posé ci ay wax yu ñuy posé des fois parce que yenn sax mun nga wax te fekk ne wax bi ngay wax sax àndul ak sa jëfin ça ne veut rien dire je pense que ni quand on est opposant on est opposant à Euh, à ses collègues de l'opposition sauf que da ngeen am ay gis-gis ci biir opposition bi loolu moo tax régime mul ñu nekk ci régime multipartite sinon day doon un un un régime euh, kii ou ou genre kii ni ñu koy waxatee sax euh, comment dire régime boo xam ne ñaari parti la ñoo am le pouvoir et puis ils s'attendent comme dans les grandes démocraties demeewu noonu y a plusieurs partis politiques dans ce pays ku nekk da am sa gis-gis y a plusieurs oppositions mais y a plusieurs gens qui sont en même temps au pouvoir yoo xam ne bokkuñu mais c'est quoi créer un parti politique moi je pense que ni Pape Djibril dañ ko dañ ko xaw a tooñ mm-hmm. pourquoi ma expliquer loolu je suis pas la pour faire l'avocat du diable mais damay seetlu rek dañ ko tooñ parce que voilà un garçon moins de 40 ans journaliste mu ne moom dafa bëgg dafa bëgg a bokk dafa bëgg boobu dafa am nu mu gisee Sénégal dafa bëgg nekk président de la République. il dit qu'il veut servir. waaw waaw servir pour être président de parce que loolu moo tax mu créer parti politique waaw kooku euh, ne dafa bëgg nekk président créer parti politique am yàlla def ay première élection tombe ci moom muy élection législative mu am benn député muy continuer yoonam moom moo xam yoon bi muy gis continuer di def soo mayage ci territoire sénégalais bi yépp ñu ne presque les deux tiers de du du, du territoire moom def na mayage bi waaw kooku mu ngi am na droit liggéey def façon am mi ngi def tuuru Sénégal mi ngi liggéey liggéeyam mais mais loolu affaire la. mais est-ce que tamit pourquoi mais est-ce tamit li nga wax ni yaa ngi yaa ngi analyser par rapport ak doxalinu Pape Djibril Fall et je vois que depuis bi nga commencé di wax yëpp yaa ngi wax fa mu doore woon ba léegi mais ci noonu peut-être nga ko gisee woon mais léegi ak acte bi mu jël nii vouloir coûte que coûte répondre à ses détracteurs ah. est-ce que loolu aussi ça lui est favorable mais man xamuma ndax ça favorable parce que ku nekk yaa ngi dox ak sa xel xool ni mais man damay juger juste la personne Euh, moom li mu bëgg euh, ses ambitions ambition du dara lu dul bëgg nekk président parce que man mënuma imaginer nit créer parti pour mais tey xam Aliou xam nga ne tey jii euh, euh, Pape Djibril Fall mu ngi yëkkati ay kàddu yu nga xamante nii peut dama si bëgg a ñëw dañuy yegg si dañuy yeggali foofu noonu. mais dama si bëgg ñëw peut-être ay kàddu yu nga xam ne nii ay kàddu yu waaso la. Hmm. te loolu xamee ko ci Sénégal te dañu nekk situation boo xamante nii situation de crise la nuñ ko mën a waxee tamit mais parce que tension am na fi hmm. est xaaroon nañu Pape Djibril Fall muy yëkkati ay kàddu yoo xam ne mën bëgguma ko répété waat mais kàddu yu nga xam ne nii mën na yee fitna ci wàllu waaso yi est n'a

bokkuma opposition mosu wax dani nekkuma fi pour ma sàmba nii ma demba c'est-à-dire l'intercoalition bëgg ci bokk ci kay bokk ci suñu euh, euh, groupe parlementaire loolu la ñu wax ni bokkuñu ci groupe parlementaire kenn dañuy dem non inscrit liggéeyal fa Sénégalais d'autant plus que ñi nga xam te ni ñoo ñu yuuxu tey ba ñuy dugg assemblée nationale plus forest lañ duggee en 2017 mais terewul non inscrit lañ nekkee def fa liggéey bu am solo ñun aussi. Ah noonu lañ bëgg a taxawee assemblée liggéey ba ñuy def sénégalais ngi koy gis ñi ngi ciy bàyyi xel. beneen bi ci des ah, moom mooy ñi que allez <laughs> parce que Sonko tamit plus fort reste la demee woon 2017 mais ñun demuñu plus fort reste des ñu am deux députés beneen bi ci des moom mooy sénégalais yuuxuñu Pape Djibril Fall encore une fois c'est pas les sénégalais les forces vives les forces vives de la nation F24 ña fa ñëwoon ñëpp xam nañ ñu yuuxu Pape Djibril Fall puisque tamit c'est pas la première fois du tey du ñaar te li may wax chaque jour li ñu doon jiiñ naan Pape Djibril Fall Macky moo nekk ci ginnaaw wala Youssou Ndour moo nekk ci ginnaaw xam ngeen ni ku Youssou Ndour wala Macky Sall nekk sa ginnaaw li ngay wax ci Macky Sall sañoo ko wax. pour revenir à ta question li nga wax ci waxu waa waaso bi wax naa la ko sànq ci sama njëlbeen wax nee naa la am na loo xam te ni sax décence mayewu ko ñu koy wax ci plateau. Mm-hmm. ci li ñuy wax ci ay kaddu mais. li li nga xamante ni moom la nit ñi ragal a wax malheureusement c'est et c'est c'est un constat ku ci nekk ci ñun li Pape Djibril Fall di wax le président Pape Djibril Fall li muy wax ku ci nekk boo wéeteeg yow kese xam nga ni lii mooy dëgg mais ji moo ko wax ndax da ngay bañ gars yi def la ni ñuy def ñeneen ñi mais la preuve te Pape Djibril Fall dafa alerté parce que du moom moo ko fi njëkkee la dame la ba te mbokkoon affaire lu mu fi waxul ci waxu waasoy saaga fu olof yëpp mais dañuy alerter que lu ñuy gis la chaque jour lu ñuy gis la la régionalisation dañ koy bañ l'ethnicisation également dañ koy bañ moo tax dañuy alerter rek puisque lañ fa dégg yëpp bu ñu ko waxoon ci tey dañuy kon naan non moo tax on veut pas être dans la victimisation dañuy bëgg a nekk dans les faits ñu cofal leen ci rek di alerter d'autant plus que seen leader waxoon na leen ni bu leen yuuxu. xam nga daal c'est pas une erreur c'est juste pour alerter que exactement dëkku mel ni Sénégal loolu xaju fi dañuy alerter rek puisque ñu koy def ñenn ci ay ndaw la ñoo xamante ni jàpp nañ ne ak mag ñoo xamante ni xam nañ mais